yónnee nañu néew bi. ñun de bu seen amoon ngay ñaan rek. mu ngi ñaan rek taxawal sàppe yi. taxawal sàppe yi Imam Abdallah. Imam Abdallah. jàng Fatiha ak ñun ko la ak benn yéene ko Cheikh Ahmed Tidiane Kane yàlla na ko yàlla teeroo malaaka yërmande sañ nañu ko dañ koy ñaan yàlla te yàlla ñu ko yàlla nangu bu ñu noppee mu ne bu ñu noppee ñun ñëpp ñu fas yéene jàng ñun ñëpp ñu fas yéene jàng fatiha fatiha benn inna anzalnaahu benn inna anzalnaahu fukki xul wala ahad ak juróom fukki xul wala ahad ak juróom yéene ko moom mii yéene ko ko moom mii ak pend ma ñu yóbbu Njaasaan ak soxna pend ma ñu yóbbu Njaasaan ak mbokk jullit yëpp ak mbokk jullit yëpp ñaan ci barke Seydina Muhammad ñaan ci barke Seydina Muhammad yàlla yërëm leen yàlla yërëm leen fatiha fatiha xul wala ahad xul wala ahad ak juróom fukki xulóo ak fukk ak juróom ak kin ko uufal yal na yàlla def mu nekk dawal bu yiw ñun ñëpp ñu teewlu yéene ci Cheikh Ahmed Tidiane Kane yàlla mi am yàlla mi am njëggal ak yërmande yàlla mi am njëggal ak yërmande yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla yërëm barke Seydina Muhammad si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam xale bi ñu ko uufal xale bi ñu ko uuf muy Adama Kandi doomam mu bokk ci xeetu maam Ibrahima alayhi salaam mu bokk ci xeetu maam Ibrahima alayhi salaam mooy ñe ñe maam Ibrahima di di yar sa jardin d'enfant ba yal na si yàlla boole xale ñuy teewlu ñun tamit ba tey ñi nga xam dañuy toog ne tant que suñu way jur duggul aljana duñ dugg aljana yàlla na yàlla booleel. ñaanu incha allah am na bu baax ñaan bu mujj gi nag. mujj gi nag. ñu jox ko Cheikh Ahmed Tidiane Anne ñu jox ko Cheikh Ahmed Tidiane Anne mu def ko mu def ko ñun ñëpp ñu ne amin ñun ñëpp ñu ne amin yal na yàlla nangu lépp bismillah bismillah Cheikh bismillah sallallahu صادق وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة يصفون asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ñun ñëpp ñu jéggal mbokk mi jéggal suñu bopp yéen bi salaam daana def naan bu ñu robaan nit ba pare nañ day wax ne nit naka ñëpp jéggal ñun ñëpp nañ ko jéggal moom jéggal nañu moom jéggal nañu yàlla na ko yàlla jéggal yàlla yàlla boole ci ñu baax ñi yàlla nañu yàlla boole ci ñu sell ñi bu ñu ko fàttee di ko ñaanal lii la soxlaa ñaan na kay yonent daan na ko wax salaa salaam bu nga robee ba noppi ñaan gi doo commencé foo ngeen commencé di ko ñaanal ba ko ngeen koy mbokk yi mu daan dal daan bokk kuréel bi daan bokk zikar bi bu leen ko fàtte te du ngeen ko fàtte mukk incha allah rabbi